je prends l'engagement bu yàlla defee ma bénéficier seen confiance donne le président de la République du Sénégal à l'issue du scrutin du 24 mars 2024 dinaa yëkkatiwaat lépp luy industrie yi nga xam ni yàgg nay màggal yàgg nay jëmmal yenn villes yi yàgg nay jëmmal yenn département yi lu mel ne Sonacos te bu boobaa aussi dinaa ko teg ci ay loxo yu am xam-xam ay main expert bañ ko teg ci ay loxo politicien mais dinaa ko teg ci ay loxo sénégalaises ak ay sénégalais yi nga xam ni seen xam-xam ci mbir màcc na te du ko naa table je sais je sais je sais que je sais que le président sortant bi muy wut digoon na leen ngeen c'est que bi muy wut nguur gi promettroon na draguer géej gi am fi bu mag a mag buy resevoir bateau yu mag a mag mais je sais que mujj ko def may jël engagement également que bu may yàlla joxe nguur gi dragage boobu dinaa ko def ba yenn produit mën a wàcc fii ba yenn produit mën a également joge fii di dem ci yeneen port yi di dem pooru Dakar ndaxte dragage boobu bu amee yenn bateau yi di wàcc fii dina tax camion yu bare dootul soxla ñu yegg Dakar li nu soxla ci marchandise daan ko mën wàcce fii et bu boobaa économie dëkk bi gën baax économie dëkk bi gën a jëm kanam te dama koy wax dama koy wax mooy mbir yi warul yam Dakar mbir yi dafa war laale bépp département bu nekk biir Sénégal et maa ngi jël engagement ni bu ma yàlla may ndam département bu mu mën a doon ci biir senegaal daa gis sa bopp ci koom réew mi daa gis sa bopp ci li état di investir loolu wax naa ko fii te xam ngeen ni sama wax bu ma mas wax respecté naa ko te bii aussi ak li ma wax ci programme bi nga xam ni cadre yi nas nan ko ñu tuddee que le Sénégal bon à vivre et beau à lañ ca wax yëpp yenn yi touché Kaolack xam leen ni bu boobaa aussi daan ko respecté dama leen di laaj benn question dama leen koy pose ñan ñooy ndaw yi fi amul xëy ñan la yëkkati leen seen loxo mais kon xanaa kenn amu fi xëy mais docteur Aziz loolu garaaw na mais dama bëgg presse bi xool loxo yi boo ko yëkkatee ñan ñoo fi amul xëy dama bëgg caméra yi jël loxo yi il faut que ñu gis loxo yi mais loolu graaw na c'est pourquoi il nous faut très rapidement un changement qualitatif un changement sérieux dans du sérieux et sur du sérieux un changement par la compétence, par la rigueur, un changement par la vérité et la justice. Et c'est seulement ce changement-là qui nous permettra de façon durable, à travers l'agriculture, à travers l'industrialisation, à travers l'autonomisation des femmes, à travers l'encouragement et le renforcement des PME, de réserver définitivement le chomage jox ndaw yi xëy bu ko defee ndaw yi dog buumu gàcce yi bëgg ndaw yi di dog buumu gàcce yi seeni biir kër di ko dog ci wetu seeni waajur di teral seeni waajur loolu laa bëgg ndaw bu toll ci xëy mënal ko boppam mënal ko ay waajuram yi investir si moom fexe nag ba bulletin bi na ngeen ko xàmmee bulletin bi mooy bulletin bu jaune bi am am lu weex li maanaam maanaam ci gàttal mooy bulletin bi nga xam ni bulletin bi nga xam ni am na jaune dëf bi am blanc dëf bi ñoo ngi jëm ci weer kon nanoo xëy ci njëkk nanoo xëy ci sedd nanoo xëy ci dal dem wote ji massivement la coalition Déthié Fall 2024 boo leen xëddee dem vote ji bu waxtu ndog ndogu jote ñu ndogoo nen bi ànd ak jaune d'œuf bi ak blanc d'œuf